ñoom nag daanaka daanaka ku ci neex ku mu neex rek mën ngaa génn wax waaye waxe xam-xam moo yombul waaye nag man maa taxaw man daal ne man la man la engagé ku ma xam-xam ne ci xam-xam laay waxe vidéo bi maa ngi ko def vendredi laa ko def maa ngi ko def vendredi moo Lo dana daan Siteu jël ba amul werante ba amul benn werante amoon man maa ko wax waxantuma xam-xam laay waxee barke alxuraan képp ku ma xam xam na ne ci xam-xam rek laay wax waaye nag man sëriñ Dame Gueye alxuraan moom Serigne Saliou Serigne Saliou daf maa defal lu doy waar la ma defal dimbali ma ba képp ku ma ñaanal sa ajo faju Serigne Saliou moom ko defal waaye nag wax dëgg si yàlla damaa nangoo jàmm yàlla nangoo sonn ci kurus ndax kenn ku ne xam na ne ñaan yàlla. lu jafe-jafe la ñu bari ñoo ngi koy caaxaane waaye nekkul lu yomb nit ki foofu nga nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ci kurus suñ borom man laa may lenn ndax suñ borom li ma yor mayewu ko da koy jaay waaye nag seet ga ma seet ak seet gi lam ma won moo tax ma génne leeral ni Modou Lo doy daan siita ci jëtt jël ba amul benn werante man sëriñ daam gi alxuraan maa ko wax barki alxuraan karim te nag heure bi mu ko def kenn ko ne xam na ko vendredi laa ko def te ci kàttanu yàlla dimanche ca ngoon insha allahu taala ku dem ci làmb ji da gis Modou Lo ci kaw Siteu maa ko wax man sañ dam samay engagement yi bopp laa jël te nag nëbbatuuma làqutuma xam-xam laay waxe lépp lu ma wax xam-xam la ku ma xam-xam na ne sëñ Dame Gueye fi mu toll xam na ne ci xam-xam rek lay wax ci xam-xam rek laay waxtaan incha allah man maa ko wax de barki alxuraanal karim maa ko wax te lii ma wax moo am barki Serigne Saliou Mbacke maa ko wax te lii ma wax moo am dama ne la bisub tey mooy ajjuma bisub tey mooy ajjuma combat bi dimaas la Modou Lo dana daan Siteu jël bu leer nañ bu amul benn werante vidéo bi maa ko def bu ma kenn nag dangaa bàyyi ba combat bi weesu nga def ko bu ma kenn ne sëriñ daam dangaa bàyyi bu combat bi weesu nga door ko def ba mu jógee jumaa laa ko seet la ma suñ borom woon fii may wax ak yow nii mooy mooy ndam li daa féete ci mooduloo Lo ndam li daa féete ci Modou Lo barki sëriñ Saliou maa ko wax te ajjuma laa ko def kon kenn ku ne xam ne ne ajjuma samedi dox na ci diggante bi dimanche door a ñëw ci kàttanu yàlla damay bëgg nag vidéo bi képp ku ci jot képp ku ci jot ndanga ma ko partagel ba mu daj àddina ndax lii ma wax kat nëbbutuuma xam nga ku feeñ ci internet nëbbutuwoo te nag waxantuuma toll nga foo xamante ne dootuma waxantu sëriñ Saliou moo ma dimbali ma nangoo jaamu yàlla ba am lii ma am ñi may ñaanal ñëpp kenn ku ne xam ne sëriñ daam du dox ci ay caaxam waaye lii ma wax ne xam-xam la barki Serigne Saliou la ma suñ borom woon loolu laa génn wax. te nag wax di yàlla weesu naa foo xamante ni waxee ma bakkan lu dë lu wér laay génn wax te lépp lu ma génn wax ko rek wax dëgg yàlla lu wér wér la vidéo bi maa ko def nëbbatoo ma sama kanam ak ni sëriñ daam Gueye alxuraan moom sëriñ Saliou man maa ne Modou Lo dana daan siita jël bu amul benn werante maa ko wax maa ngi nii nëbbatoo ma